di leen xamal ni leen soxna tey ku ñëw ci yi bari nañ mais dañ naan tey yow yaay recevoir loolu nag yaa ko may sa bopp de xam nga ni man de joxuma kenn sama bopp waxuma laay nag DER bii nga xam ne état moo ko moom waaye day tax koo xam ni noo ci duggee rek noonu nga ciy nii te yow dugg nga ci ba ci biir metti mën naa baax leneen li ko des moo di man lii sama warugar moo di dëgëral nanu crédit bi parce que nano crédit bi rek mooy produit DER moom la Sénégal moom moom la xaalisu Sénégal dem parce que ñun bailleur de fonds yi ñu ñuy jàppale léegi bi may inauguré antenne Mbàkke laa koy wax préfet bailleur de fonds yi ñuy jàppale ñu ngi ñuy jàppale ñu jox ordinateur ñu ngi ñuy jàppale ñu samp antenne waaye DER bii dañ ni ñoom duñ ci dugal seen xaalis xaalisu état moo ci dugg bi may wax ak ñoom gouverneur tey ci suba dama ne leen xaalisu état état moo koy fayeeku te foofu nag laay ñëwee ci li nga wax ne naa la dëgëral danañ leen dëgëral de gouverneur dugg na ci préfet yi dugg nañ ci te gouverneur nee na ñetti pee la suufu fas jël la leblewul fayu bor leblewul fayu bor ku ko jël da koy fay leneen li ci des moo di xam ngeen ni dafa am lu xew ci dëkk bi mooy am na ñu jëloon xaalisu dëkk bi jaawale poche ñu tuddee ko reddition des comptes ñooñu du leer na leen ne dinañ fay ñoom xaalisu DER bi ñoo yem xaalisu état la mais man Aïda Mbodj problème bima am moy dama jaar ak jigen ni ci teranga bu nek man defoon naa jigéen ñi rek motax may mom kon ommat jigen ni ko dangaa yele xaalis nang wo ko fay kay dugg fi lolou duma tiss la surtout sama région ah mbolo mi nañ len waxtan ndax lolou diss na ci man te yena ko meuna a oyofal waye nak dafa am len lo xamne de mo upp importance ci man mooy bor bii nga xam ni man moom mbokk te foog ñu fay soxna maam Bousso ku ngeen xalaat ni yor na bor yëgal leen ni ko bu ngeen ko mënta fayeeku wala police mënu koo fayeeku ñun jël nañ ñaari avocat